asalaamaaleykum gars yi vidéo tay bi dama leen doon nan ngeen télécharger vidéo YouTube Instagram Facebook Twitter même sax TikTok mën nga télécharger vidéo TikTok sans filigrane filigrane mooy comme vidéo yi ngay télécharger mu am turu ki moom vidéo bi di àndaaleeg vidéo bi noonu ci kaw wala ci fin bi application bi boo ko télécharger du ànd ak benn filigrane bu fekkee nouveau nga ci chaîne bi bul fàtte abonné activer cloche bi partager vidéo bi tamit bul fàtte liker vidéo bi lu bi disponible gul ci Play Store application bi moo nekk nii boo dikkee da ngay bës autorisé boo ko see autorisé léegi lien boo copier da ngay bës fi mu def paste link léegi ñu dem télécharger vidéo YouTube comme dañuy télécharger sama vidéo bi léegi boo ko bëggee télécharger da ngay def fi mu def partage boo bësee partage après nga copier lien bi léegi da ngay bës fi mu def copier le lien boo bësee copier le lien nga dem ci application bi léegi boo ñëwee ci application bi paste link fii rek bës mu télécharger ko directement léegi balaa ñu koy kii dañuy wàññi comme qualité vidéo bi comme qualité bu fooree mën na yóbbu sa connexion internet léegi boo ko bëggee wàññi da dem ci paramètre boo demee paramètre nga def ko bi nga a foor bi léegi boo dikkee da nga koy def cent bi bu fekkee da ngaa bëgg a économiser sa connexion internet léegi après nga def retour léegi boo bësee retour copier nañ lien bi ci YouTube da bës fi mu def paste lien fii léegi gis ngeen bi mooy léegi ñu dem télécharger vidéo TikTok boo ñëwee TikTok da ngay bës partage boo bësee partage nga def copier le lien boo bësee copier le lien après nga dem ci application bi def fi lien bi après nga ñëw ci application bi nga bës pass link fu vert bi comme vidéo YouTube bi ni nga ko télécharger léegi boo bësee pass link vidéo bi mooy démarrer nii ci kaw léegi tamit ñu def la même def ko Instagram. bu demee Instagram da ngeen def comme ngeen def TikTok da ngeen di da ngeen di copier lien bi rek après ngeen yóbbu ko ci application bi nga télécharger ko directement comme ñu bëgg a télécharger vidéo bi da ngay bës 3 mu def lien boo bësee après ngeen dem ci application bi bu ngeen demee ci application bi ngeen def la même chose comme ni ngeen defoon YouTube ak TikTok léegi ngeen def pass lien léegi boo bësee pass lien après vidéo bi moo nekk ne léegi ñu def ñu dem def ko comme Facebook tamit. boo ñëwee face boo ñëwee video da ngay def partage boo defee partage après nga def copier le lien boo copier lien bi nga yóbbu ci application bi après nga bës pass lien léegi boo bësee pass lien lien bi appliqué bi vidéo bi moo nekk ne ci kaw di démarrer ñi ngay télécharger vidéo bu la neex ci ci application bi. léegi boo bëggee télécharger application bi da ngay bës lien bi ci description video bi description vidéo mooy comme boo dikkee YouTube da ngay bës sama titre vidéo boo bësee titre vidéo bi gis ngeen application bi lien bi moo nekk ni ni moom laay def fii lien application bi laay def nii mooy bind bu bleu bi boobu ngay bës boo ko bësee dina la yóbbu ci site bi nga fi ngay télécharger application bi léegi boo bësee lien bi ci description bi fii la lay indi directement après nga bës fi mu def obtenir le téléchargement mën na koo bind anglais bu ko bindee anglais bu leen neexee mën ngeen koo traduire français léegi ngeen bës obtenir fu fu rek ngeen di bës obtenir le di vidéo 4 après ngeen bës ko bu ngeen ko bësee après ngeen xaar tuuti téléchargement bi dina démarrer léegi bu ngeen ko bësee ngeen patienter tuuti gis ngeen après ngeen bës retélécharger bu fekkee yéen télécharger lay bind mais man dama ko télécharger ba pare mu ni ma retélécharger ko 45 moo la application bi diisul après ngeen bës télécharger vidéo bi démarrer fii léegi boo bësee télécharger vidéo bi nga xaar ba mu egg téléchargement bi egg comme boo bësee télécharger ni gis ngeen day bind téléchargement di fichier après ngeen bës détail boo bësee détail keles application bi mooy nekk nii moo de mooy démarrer nii léegi bu eggee da ngeen koy bës installé ko tey boo ko installé nga ouvrir ko télécharger vidéo bu la neex li moo nekkoon vidéo tay bi bu fekkee vidéo bi neex na la bul fàtte abonné activer cloche bi partager vidéo bi pour chaîne bi gën a am doole tamit bul fàtte like vidéo bi lu am solo la ci chaîne bi kon ba beneen vidéo incha allah